al leen ma seeni i nopp ma xibaar leen di si yéenekaay yi réeroo amul ñàkk waxtaan rek am ba tax si du quotidien nee na xëccoo bi am ci diggante presse bi ak état bi amaana rek mu dakk ba jàmm dellu si ndax président Bassirou Diomaye Diakhar fay woote na dialogue te jëwriñ bi ñu dénk wàllu communication di Alioune sàll lancé na benn plateforme boo xam ni jubbanti secteur média bi moo ko tax a jokk bés bi le jour di ko ca feelu ndax yéenekaay bi nee na crise bi am ci presse bi tax na rek ba président woote ab dialogue rénové ngir nag am ay dogal yoo xam ni rek day yombalal yëf yi média yi itam ministre de la communication lancé na ab plateforme ngir recenser leen waa Synpics yéenekaay bi nee na ñoo ngi rafetlu doxalinu président ci mbir mi Walf Quotidien ñëw ci assemblée nationale bi mu ne ci tas la jëm ba tax yéenekaay bi ne député yi ci yoonu génn assemblée googee la ñu nekk waaye tey ci vendredi bi ñoom député yi woo nañu leen ci ab séance plénière ngir nag ñu yeesalaat règlement intérieur

gaawantu bi nga xam ni naka moom moo ci am tax na rek bu ñu sukkandikoo ci révélation député bii di Mamadou Lamine jàll bu tekki di ko ñaawlu ndax nag nee na procédure d'urgence dañu ko doon xeex ci jamono bi nga xamee ni Macky Sall mu ngi fi woon te tey moom la ñu bëgg a andiwaat ak coppite révision règlement intérieur bi ba tax na moom mu xam leen ni tas assemblée nationale nag dafa jot sëkk assemblée nationale bi nag moo wote woon lu waa ci yëngu-yëngu yi nga xam ni moo fi amoon ci wàllu politique euh, ci diggante février 2021 ak février 2024 24 heures yéene kaay ñëw ci Birahim Seck euh, moom mi nga xam ne naka nee na euh, loi bi dañu ko war a abroger maanaam dañu cee war a dellu ginnaaw ak njeexital bu ci mënti am ci wàllu ku yoon mu xamle moom njiital forum civil ne moo ngi sàkku ci nguur gu bees gi ngir nag ñu ubbi ab enquête ngir ñu mën a xam ku def ak ku deful ngir nag ñi si loru mën a am justice Waly Diouf Bodian njiital port coow topp na ko bu baax jamono Dakar Presse na audit bi ñu amal ci gestion ressources humaines bi euh, dañu dañu ko cee rek daal di épingler euh, ndax nee nañu euh, moom njiital port marché d'appel d'offre bi nga xam ni moo fa am benn conseiller technique la ko daal di jébbal ba tax waa syndicaliste yi nga xam ni ñoo nekkee ca port autonome bu Ndakaaru di ko naqarlu ndax nag nee nañu violation flagrante du code des marchés et de la charte de transparence et d'éthique en matière de marché public moom la daal di def les états les échos di ko dëggal ndax yéenekaay bi nee na ni mu yore port moom Waly Diouf Bodian syndicaliste yi ñaawlu nañu ko ndax naka nee nañu daa violé article quatre-vingt bu code de marchés publics euh, ba tax lii quotidien jub jubal jubbanti moom moo ngi souffrir bu baax a baax foofee ca port autonome bu Ndakaaru euh, ba tax ñoo ngi woo président Bassirou Diomaye Faye euh, mu dal di dakkal dëng dëng dëng dëngal ak weng wengal bi nga xam ni moom la fa nekkee ñu woyal ak la dépêche mi ñuy xamal ni euh, Serigne Mboup mi nekkoon parrain salon international sur le développement des infrastructures et de l'immobilier à Paris xamle na fa ni moo ngi sàkku ci état bi ngir nag mu taxawu bu baax a baax secteur privé bi jiite état bi di Bassirou Diomaye Faye l'info nee na euh, seeyal na benn euh, Benoît Samb ndax tas na la nga xam ni moom la jiite woon di commission nationale du dialogue des territoires point actu ñëw ci ki nga xam ni moo di Abdoulaye Diouf Sarr euh, mi mi mi nga xam ni nag nee na ay leeral lay sàkku ci Macky Sall ak Amadou Ba euh, ci lu jëm ci rek defet bi nga xam ni bennoo am na ko ci présidentielle yi ñu weesu euh, ndax nee na ñoom nekkuñu ay moomeelu Macky Sall wala Amadou kon nag li ñu xam ñoom ñaar ñoom it dañu ko war a xam nee na ñoom ñaar dañoo ameel askanu Sénégal ay tontu ameel ko itam ñi àndoon ak ñoom suuf su a ñëw na ci li waral rek ñu daal libéré Adama nga xam ni mooy rakku ci Marème Faye Sall yéenekaay bi ne enquêteurs yi dañoo euh, nekk rek yi nga xam ni moom Adama Faye jox na leen ko moom rakki Marème Faye Sall bi kon manees na koo wooluwaat à tout moment euh, lépp a ngi des rek ci li nga xam ni moom la gendarme yi di gis euh, ci saytu bi nga xam ni ñu ngi koy saytu jamono ji ci dossier am Serigne Gueye Diop di jëwriñ bi ñu dénk industrie ak commerce Téral Quotidien nee na moo ngi dalal xel yi ci lu soxal màggalu Tuuba bi ñu jëm si lu jëm ci rek ñu fay euh, gën a soxla ndax nee na yi lépp dooy na sëkk ci marché yi ba tey lu jëm ci màggaluk Tuuba gi l'évidence moo ngi ñuy xamal ni waa ARTP mobiliser nañ opérateur yëpp ngir nag ñu amal qualité réseau bu mucc ayib euh, ñu woyal ak le Dakar waa quotidien mi ñuy xamal ni eh, kenn ci magistrat yi nga xam ne affecté nañu leen ca Tamba ngir nak bañ a dem benn maamën la jël daal di koy indi këram eh, mu dugal ko xel ngir nag ñaanal ko ngir mu bañ a génn Dakar eh, te soxla ñaan ki soxla ñaan ak soxla ñaan ak xëlwa jamono ji mooy tali bi accident yu bare yu métti yi nga xam ni moo ci am vox populi di ñuy xibaar ni bi ci mujj di bu démb bi accident ba nga xam ni mu ngi xewee ci diggante ndulloo ak xuru mbàkke benn camion moo mbëkkante ak benn kaar juróom benn nit faatu ci ci si yeneen ñetti itam toftalu ci ñu ëpp nag si ñi nga xam ni ñoom ñoo faatu nee nañu diwaanu ko Jurbel lañu dëkk te ci ab dëj lañu demoon ci diwaanu ko Tuuba fi ñetti blessé grave yoo xam ni ñoo nga ci hôpital bu Diourbel yeneen ñaari blessé grave yoo xam ni yóbbu nañu leen ca Touba teew teew bi na si digg si turbine ne ci diiru ko juróomi weer ay téeméeri nit faatu nañu ci si diggante gaal gu këpp ak accident wu oto la xew ca Cees itam doy na waar réew mi quotidien nee na benn jakartamaan euh, la ñu fa daal di faat ka ko faat itam ñu daal di koy taal jamono jooju mi ngi woon di dund euh, nee nañu nag moom agresseur bi daa bëggoon a sàcc moto bi nga xam ni jakartamaan bi moom moo ko moom si jamono joo xam ni moom jakartamaan bi ci benn soirée dansante la jóge woon ci la ñu darkeppee li ci yéenekaay yi ma doon leen seeni nopp ba ëllëg ëllëg ak jàmm ci Nassirou TV jërë ngeen jëf